alaan bikum njiiti réew mi Macky Sall fa tàggatoo ak wëy takk der yi soldaaru Sénégal yi allah indépendant yéene kaay ñu ko xamal ak yéene yu bari bokk na ca enquête yéene kaay réew mi yéene kaay ak yeneen ñoom ñëpp fa ñoo xamal ne démb fa tàggatoo ak soldaar si moom njiiti réew Macky Sall indépendant yéene kaay ne faa leen di wax kàddu yom yëkkati nga xam ne ku ko dégg xam ne kii kay fa leen a tàggu yaw seetal njiiti réew Macky fa wax soldaar si na leen bu neexee yàlla bés bii keneen mooy nekk président bu Sénégal ñëw taxaw fii jàkkaarloo ak yéen waaye kooku normaa wuutu su ñëwee fay continuer état bi ak république bi way nekk di chef suprême des armées yéen bi ne bésu démb bi nag moo nekkoon ñaar fukkeel bi yoon di bëccëg bi nga xam ne moom la ñu jagleel fa nag moom njiitëram Macky Sall fa ëlbatiku na leen faa bëgg ngeen xam ne man jàppale naa leen taxawu naa leen yéen soldat si ndax bi ma jëlee réew mi 2012 ak 2023 bii xaalis budget ne moom lañ dugal ci armée bi man faa ko yokk 250 pour cent ñu ne déetawaay bi ma jëlee réew mi tamit li mu daar faa ko yokk ñu ne déeta man njiit réew Macky bi ma nekkee njiitum réew seen salaire yéen soldaar si faa ko yokk te mooy a kaay ne yemut fa de ba tey moom njiit réew Macky fa kañ fa sargal suñ soldaar si si seen taxawaay bu rafet si seen ak ci seen ak fayda ci aar réew mi ak askan wi ba tax fa leen wax gàcce ngaalaama Le Soleil yéen a kaay na ko ba tey yemut fa de njiit réew Macky fa wax ne yéen soldaar si faa bëgg kàttanu réewum Sénégal ci wàllu soldat ak seen doole ak seen xarañteef l'observateur mel ni ku naan ko man moom faa seetlu ne li ñuy wax administration ay bataaxal document fa fay génn di yegg ci askani te wartoon a am wala nga gis koo xam ne fay weer xuññi sutura état te loolu fa garaaw de te fa ñoo seetlu na léegi fa bëri te ñaareel yooyu du baax ci kaaraange askan wi leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne opposition bu Sénégal wal fajiri yéene kaay fa seetlu ne coowal Ousmane Sonko lii dox diggante moog waa DGE dugal ko ci fichier électoral ba génne nañ ko bañ a jëfee Moustapha seetlu na daal opposition bi ñoom fa ñoo def mii kenn waxu ci mel ni seen yoon nekku ci te loolu nag fay tey xel ñu ne déetawaay Sénat bi nga xam ne njiitiram Macky Sall fa koo tas falaat ñu bees am na ca ñoom ñoo xam ne fa ñu koy politigal xam ñoo xam ne ña nga yor ñaari nopp ma tànk ñëpp di ko ñaawlu waaye ku jigi opposition ba léegi kenn dégguñu wax ci ba ci doxalinu wote yi processus électoral bi ñoom fa ñoo noppi rek comme intéressé wu Ousmane Sonko yi li tax ñu ne bëgguñ attikat boobu di Abdoulaye Ndiaye jiite audience ba ñu ngi koy leeral ca biir yéen a kaay ba turbine yéen a kaay ne man daal faa leen di xamal leen gis ngeen mbiru Khalifa Sall mbiru Karim Wade ba ci mbiru Ousmane Sonko yii askan wi ñoo ciy perte waaye nguur gi moom li mu bëgg te li mu mës a nekk ca la nekk ba léegi <laughs> yow fa ngay xool nguur gi bi mu gisee ne Karim Wade mënoon naa jël nguur gi fa ñoo fexe ba éliminer ko bokkut ca woto yooya Khalifa Sall bi na leen a sonal fa ñoo ko bokkutoon ci woto yi bi ñu gisaatee tamit ne Ousmane Sonko mii gi sànki pexe ba du bokk ci wote yi te li ni mel nguur gi yàgg na koo def waaye tribune yéen kaay fa wax nag ne ci mbiru Ousmane Sonko yi yëf fa gën a fàngaaral kay doxal mairie bu Ndakaaru Barthélemy Diaz fa wax fukki dëggam ak ñaar ca nañ yore wàllu social ca mairie ba yaaw seetal Barthélemy Diaz fa leen a wax ne maye ay bourse liñ ci def fa bëri ba jéggi dayo ndax 3 milliards lañ woon mujj nañ cee dugal lu ëpp 3 milliards baax na waaye mairie bi nekkul Croix-Rouge boo a jóg fa ñoo war a investir te 600 millions yiñ génnee mënta tabax lycée pour muy leer liggéeykatu mairie bi nag fa a am ngeen ko waxee ci les si ko yéen kaay si du quotidien moom fa di laajte ne wote yi di yàqal ñi nga Ba mooy ñi nga xam ne pare na leen bàyyi leen li ngeen di def yéen seen bopp ngeen yàqal kaay fa ñoo xamal ne diwaanu Kaolack ndangaan guléet fa xam kër gu njëkk goo xam ne ndaw ña lañ ko jagleel ak wàllu citoyenneté ci njëg lu nar a toll ci benn milliard di xibaar bu bàyyi ko ca Pape Malick Ndour jëwriñ ji dénk wàllu ndaw ñi fas yéen a taxaw ndaw diwaanu Kaolack ndangaan Vox Populi moom fa ñoo xamal ne gerawu jàngalekat yi SAEMS gars yi topp nañ ko de geraw nañ de 70 pour cent ci jàngalekat yi jàngale wuñ démb direct news moom fa xëy di laajte tàggat yaram yéen foog ne dana am ndam ci ko dénk Lat Diop yaw xool ministère ba bor bopp ñaari milliards oto yu màgget ak ak jafe-jafe yu xaddu jeex moo fa am li xam Sénégal dem ba jéggi dayo mooy ndawam yi nga xam ne ñu ngi faatu ci géej gi Barça mbaa Barça le quotidien yéen a kaay ne li ci gën a garaaw nag mooy ay jigéen soxna ay xale yu ndaw fañ cee bëri te ñu ngi dee ci géej gi moo tax nguurug Sénégal fa cee xartànk tubóoyam ngir dakkal li ni mel tàggat yaram Barça fori na neew Shakhtar a ko jàpp fa ko mbuqi ba mu bëgg a dee City ak Leipzig ñoom dem nañ huitième de finale tey nag équipe bu a mag bi Real su mbuqee dem huitième de finale mook Bayern stade a kaay ñu ko xamal la mu ñu a kaay jabet fi toll ni fay gën di bëri ci réew mi mi de te xam nañu wax ne fii léegi deux xam nga ñaata nit ñoo nar a am jabet ci àdduna bi sept doomu aadama aay bés bi yéen moom fëqee amal jàngat ci ñi nga xam ne safara fale na lakk ci seen yaram at bu yàlla sàkk ñaar fukki junne doomu aadama fa ñu am lakk-lakk safara te ñaareel seen faj mi fay jafe te lakk-lakk lu métti la yéen baa ngay nettali ab nee na tuuti bu juddu bees infirmière ba docteur bu jigéen ba fa ko jël dugal ko ci ndox mu ba yaram lu baaxul lu bëri Sénégal mooy film théâtre yi ñaaral ñuy def théâtre yooyu fa ñuy ëppal def loo yow théâtre rek lu ci jar ay góor ak jigéen di sësante summee ko def yaramu neen dugg ci ab piscine aj ay tànk loolu foog ngeen ne théâtre la baaxut waaye ñu nekkuñu ay tubaab nga xam ne bu leen neexee def yu fu saay-saay ci seeni film ba tey l'observateur ne faalan di wax mbir mu yéeme benn soxna daal fa am jëkkër ba pare xam far léegi far wa sàcc ko juróom-ñeenti million mu porte ko plainte yóbbu ko tribunal yëf yaa nga amee ca diwaanu mbuur laas yéen ko yow kii mooy kat ak lu ngeen séq mooy leen man de am naa jëkkër waaye kii <laughs>